lépp loo xamante ni waxoon nañu ko gisuñu ci dara ba li nga xamante ni joxoon nañu ko ñu du ci am yaakaar lu mu néew néew muy vingt hectares yi yàlla dogal bi ñu ko liggéeyee bay waaj a pare am service technique yi nekkoon foofu ci département de Rufisque ñu ñëw xamal nañu seen ministre Abdoulaye Daouda Diallo dafa wax ni président Macky Sall nee na décision boobu mu jëloon dellu na ci ginnaaw biñ ñuy xamal ni 20 yi yéen ko moom boobu dañ ko bind ci këyit jox ñu ko waaye biñ ñuy wax ni président nee na da ciy dellu ginnaaw kenn bind ko ci këyit lu dul dañ ñu ko wax noonu rek biñ ñu ko waxee nag li ñu leen tontu leer na mooy que ni bu ngeen ko bëggee nangu ci suñuy loxo na ngeen ko soppi def ko Bakhiya numéro 2. parce que ñun du ñu ko bàyyi tey du ñu ko bàyyi ëllëg. problème suuf mi ngi bëgg a bari ci Sénégal problème foncier bari na bari goo xam ne nii. dafay jot nag képp koo xam ne doomu Sénégal nga képp koo xam ne avenir Sénégal ñor na la day jar tey nga yëkkati sa kàddu wala nga yëkkati sa loxo dugal ko ci xeex bi nga xam ne moom la citoyen yi di xeex moom la njaboot gi ak askan wi di xeex xeex boobu ban la mooy jënd sa suuf ba moom ko wala nga doonu sa suuf dëkk fa ay at autorité dikk tey yëkkati la jox ko des des étrangers wala ñu jël ko jox ko benn nit ñoo xam ne am nañuy kër ami tool am lépp ñu nungu këri jàmbur yi nga xam ne citoyen yi nga xam ne benn kër lañu am liggéey ba màggat wala ñuy njaboot gu ndaw amatuñuy waajur am benn kër autorité dikk taxaw fële ëpp leen doole jaay leen doole maa tey nungu seen suuf loolu dafa war a jeex Sénégal dafa jot ah ñu bañ a toogati seetaan ci li nga xam ne dal na leen ñoom waa maris dal na euh, waa Tivaouane Peulh dal na waa Gàddaay dal na waa Diamniadio dal na waa Mbane dalna wa tamba kunda dal na euh, Wasadu buñ fi doon lim kenn du fi motax nak ñooñu ñëpp nañ président Macky Sall wax fi yagul torop ne bokk na ci liñ koy sonalé lu mbirum suuf wax dossier yi nga xamné ci lañ koy gëna euh, diko xuri ah kon président Macky Sall ci bopam mo wax ne mbirum souf dafa lecc dafa jafé bari na ciow bari na ay jafé jafé motax nak ah ñun ñu né ñun dinañ si bay suñu war bay ci suñu moy mooy mënutuñu tok sétan ñu nangu këru jàmbur mënutuñu tok sétan ñu daaneel këru jàmbur mënutuñu sol tok sétan ñu nangu tol jàmbur mënutuñu tok sétan ñu nangu fi nga xamné mom la suñuy mbokk sàmmkat yi di samé ndax té souf la souf pour samle souffre pour de te ñooñu ñëpp am nañ ay jafe jafé nous yi am nañ ñu ngi nangu seen ay pour Sam, nous ngi nangu seen souf. nous tamit suñu ay mbokk am nañ ay jafé jafé ndaxte dañoo dajalé xaaliss dajalé xaaliss dajalé xaaliss ba di waja à la retraite ñu jënd pack, ñu jënd euh, ba ñenn ñi ñu mel ni waa Tivaouane Peulh ñu daaneel seen kër yëpp ci seen kanamu doom. président Macky Sall su fekkente ni décision bi mu jël ba jox ñu vingt hectares yi ak lu ko nit mun a wax ba mu dellu ci ginnaaw loolu na ko seetaat te xam ni lépp luñ ko wax lu dul victime yi nekk Tivaouane Peulh dañu sonn seen njaboot yi tasaaroo nañ. trois ans seen i doom jànguñu seeni i sëy ñenn ñi tas na ñii seen i doom ak seeni soxna yi faatu nañ à cause que naqar bi leen dal kon ñung koy wax ni ko décision bi mu jëloon lepp lu ko ci mëna delo ginaaw nako sétat té xamni ñun fa ñu nekkon ba mu am yermande ci ñun ba mu am gis-gis bu rafet moy nañ leen delo té fay leen seen impasse gis-gis bobu ak nekkin bobu ñu nekkon ba tay ji fofu lañu nekkat li nga xamne mom lañu xam moy fépp fu ñuy neewale doole askan wi dinañ ñu fa gis ñun collectif des habitants des maristes xex bi ñu xeex barki dem senegal gep jappalé ñu ci bañu am ndam fu lu mel nonu xewati bu ñu fa wo dinañ fa dem. te dinañ ko xeexle la ñooñu bañ am ndam parce que lii xew Sénégal jaaduwut lii xew Sénégal jaaduwut ku ko waxul da ngaa mënut a wax wala sañoo wax ñun nag ginaaru kenn nenu ñu fu ñuy brimadee askan wi dinañ fa teew te dinañ fa wax dëgg gi nga xam ne yàlla borom bi subhanahu wa taala rek moo tax ñu di ko wax lii xew Sénégal jaaduwut un Sénégalais un toit dañ koy wax waaye coow dong la Sénégalais yi amul kër bari nañ Sénégalais yi nangu seen suuf bari nañ Sénégalais yi ñàkk seen donoo bari nañ léegi nag c'est le c'est il est temps que nous, de fédération des victimes foncières du Sénégal te loolu ci la FRAPP di dox ci la ñuy dox ñun wa collectif des maris ci la ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di dox.